ñu ngi leen nuyu bu baax ñaan dafa nekk loo xam ne ndigalal yàlla la xam nga fay sax sa alaka ibaad yi xam ni fay ni xaribun googu loolu yàlla daf cee wane doomu aadama ne ko je suis à votre disposition bu fekkee ne alquran ñëw na yàlla wax nañ ñu ne ñaan leen ma ma may leen léegi nag ana naka la ñuy ñaanee foofu la gaa yi rawante ñaan nit dana wax tàllal julli tàllal loxoom yàlla ñaan ko yàlla may ko nit dana ñaanlu ci nit waaye am na ci jaam ñoo xam ne yàlla may na leen ijaaba ba nga xam ne luñ ñaan yàlla mu may leen ko ci niñ koo ñaanee yàlla may leen tawfiix ci wàllu ñaan ba nga xam ne lépp loo xam ne nit ki soxla na ko rek ci wàllu dundam ci digganteem ak boppam wala ci digganteem ak si mbokkam wala ci ay ay moromi doomu aadama su ko itteewee am na ay jumtukaay yoo xam ne yàlla moo may doomu aadama xam-xam ndax yàlla yàlla ci bopp moo na wa allama aadama wa allama aadama lasmaa kullaha yàlla moo wax xamal na aadama mboolem tur yi léegi nag yàlla xam boobu mu xamal aadama ca la yàlla ballalee mbooleem xeeti xam-xam yi mu tas ci mboolem doomi aadama yi ba xam ne nit ki su laa dara su taxawee ñaan yàlla mën na koo may waaye am na yeneen xeeti xam-xam yoo xam ne yàlla xamal na ko doomu aadama ndax yàlla moo wax ci alquran ne wa allama al insaanu maa lam ya'lam yàlla moo xamal insaan bi nit ki loo xam ne xamu ko woon kon xam-xam waxtu wu nekk yàlla daf koy geesal ci nit ki mu koy am kon nag ñaan dafa am solo moo tax léegi ñu dem nga xam ne cet amoon na bu njëkk waaye mel woon comme nii mu mel léegi nga xam ne day yàqal nit ki ba mu jàkkaarlee xam ne cet a ko bu njëkk ba bu cet yàqalee nit nit ki nit ko koy xamal boroom xam-xam yi ñoo koy xamee léegi nit dina am yàqu-yàqu ba xam ne cet a ko yàqal nit ki bu amee cet dafa am ay màndarga yoo xam ne ci la ñuy xàmmee cet wàllu ñaan nag dafa am ñoo xam ne ñoo ko jagoo première chose bi nga xam ne moom la nit ki war a itteewoo ci wàllu ñaan mooy ñaan yàlla am ijaaba da xam ne da am barke ci sa ñaan ba képp koo ñaanal yàlla rek mu gis ko loolu moo gën a jafe nit ñi jàng nañ am na ñu am xam-xamu asraar am ñu am xam-xamu seet am ñu am xam-xam mais xam nga lan moo gën a jafe ci àddina tey mooy am soxla dem ci nit ki mu ñaanal la yàlla yàlla may ko doom loolu moo gën a jafe te alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla boobu moo tax wàllu cat dañ yàlla pour dimbale ko dimbale nit ñi cat comme boo buggee ñaari façon xaaj yi man ci laa nekk di ci yëngatu mooy ki cat jàpp pour dindi ko ci yaramam ba mu set ci moom ak ki nga xam ne bëgg na cat bañ koo yàqalate ci li des ci dundam am nañ xam-xamu dimbale ko pour moom protéger ko ci wàllu cat ba cat dootu ko jàppati ci li des ci dundam wala dootu ko yàqalati am na ci yeneen xeet yoo xam ne tamit ay galaaj la yoo xam ne dañ koy jëf dañ koy liggéey pour nit ki bu bëggee am kaaraange ci boppam nga xam ne benn doomu njabarkat wala benn liggéeykat wala benn kat moo xam nit la moo xam jinne la dootu ko mën a yàqal am nañ xeet liggéey yooyu ci wàllu gàllaaj pour aar la làqal la ba nga xam ne kenn dootu la mën a yàqal da ngay dégg nit ñi naan diw sàngam yàlla la yàlla ay làq fu yàq yeggul loolu dafa am secret bu tax ñu koy wax làq dañ koy am dafa am secret bu ñuy wax làq làq la foo xam ne yàq dootu fa eggate yow loo xam ne nit a koy def dootu la dalati su fekkee ne dogalab yàlla na nag ñun mënuñ ci dara ndax la hawla wala quwwata illa billah yàlla moom moo am pexe moo am kàttan ci doom aadama bi ba lu mu bëgg ci moom day am waaye lu dul dogalam yàlla moom bu dee nit a ko dégg la jinne moom da nga mucc ci loolu am na xeeti gàllaaj yoo xam ne dañ koy liggéey ci loolu am na xeeti cangat yoo xam ne dañ koy def ci doomu aadama yi bu dee da nga daanu danga nga daan am wërsëg ba yàgg sa wërsëg taxaw wala nga daan am alal te alal di yàqu wala nga daan am léegi amatuloo wala nga nekk koo xam ne nit ñi dañ laa xamoon ñu fa kenn gisatu la wala nga nekk koo xam ne yàlla daf la daan wërsëgal léegi loo am rek nga gis muy am ay yàqu-yàqu loolu am na ay xeeti cangat yoo xam ne bu la ko defalee day denc ci yow ba mu set nit ki nga xam ne nag bëgg na yàlla may ko alal ci àddina mu nekk koo xam ne ñëpp seede nañ ne diw borom alal la dafa am sangat boo xam ne loolu moom moo ko tax a jóg am ki nga xam ne dafa bëgg yàlla may ko protection kaaraange am na loo xam ne loolu moo ko tax am na ki nga xam ne dafa bëgg nit ñi xam ko àddina xam ko mu siiw nit ñi dégg turam nit ñi di ko bàyyi xel loolu am na lu ko tax a jóg am na koo xam ne dafa bëgg yàlla dimbale ko ba ay noonam duñ koo mën a yàqal te parce que mu ci place di liggéey te gis ne gaa yi song nañ ko am na ci yoo xam ne boo ko amee kenn mënut laa yàqal ci barab ba nga nekk lu dul yàlla daf lay yokk surtout nag bu la nit ñi jógee di la xeex fi ñu lay xeex rek yaa ngi gën a yow yëkkati ko ba bu set ñu gis ci yow yokkute boo xam ne dañuy xam ne lii seen xeex moo la ko may yow nit nit ki di xeexee nit ki ba ci moom ne yàqal na ko xam ne xeex bi ko xeex moo ko yàqal lii noonu lay xamee ne xeex bi mu la xeexal a yokk yow te loolu dafa am ci ay gàllaaj yoo xam ne bu la yàlla may noonu lay def waaye nag gis nga ñaan xëy rek na ñaankat la yow mën a de waaye ñaanal nit ki mën na la jërëjëf loolu foofu la foofu lañ rawante